daañuy waxtaan ci garabu pom ak garabu orange ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ñu tàmbalee émission bi dugg ci Fatiha xam ngeen ne Fatiha moom la ñuy wooyee umul kitaab maanaam mooy ndeyu téere téere bi alxuraan tey bu doon nit la dañuy wax ni yaayam alxuraan la maanaam tey alxuraan bu doon jigéen nit la dañuy wax ni ndey ji mooy Fatiha moo tax ñu wooyee ko umul kitaab ndax boo jëlee kaamil bi boo ubbee Fatiha ngay njëkk a gis beneen bi mooy. juróom-ñaari fan rek moo am ci àdduna bi olof mooy wax dibéer altine talaata àllarba alxames ajjuma gaawu tubaab mooy wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samdi arab mooy wax yemul ahad yemul isnayni yemul sulasaayi yemul arbuayi yemul xamisi yemul jumaati yemul sabti juróom-ñaari bis euh, juróom-ñaari bis yooyu moo ànd ak juróom-ñaari tur yi muy faradu jabaaru shakuru sawaabu saxiiru xabiru zakiyu mag ñi di ko tënk ci fajasa sa saxasa di xaatimu suleymaan alayhi salaam mu ànd ak juróom-ñaari rawxaan yi ànd ak juróom-ñaari bisi rawq yaa ilu jabr yaa ilu sams yaa ilu mik ilu sarf ilu xan ilu ak kasf ilu mu ànd ak juróom-ñaari jinne yi ànd ak juróom-ñaari bisi muy jinne mësëb jinne muratu jinne ahmar jinne barxaan jinne samharoos jinne abyadu jinne maymuna mu ànd ak juróom-ñaari tabia wala nga ne juróom-ñaari bidiw wala nga ne arab mooy wax tabia muy shamsun xamarun mariqun utaaridun mustari sohrata suhal noonu la amee juróom-ñaari aaya alquran yi ànd juróom-ñaari bi si aaya bi ci njëkk mooy allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum laa taaxusuhu sinatun wala nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi ardi man sa lasi yashfau indahu illa bi isnihi yaalam maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuxituuna bi shay'in min ilmihi illa bimaa shaa wasia kursiyyuhu samaawaati wal ardi wala yauduhu xifzuhumaa wa huwa al aliyyul aziim ñaareelu aaya bi mooy badiu samaawaati wal ardi wa isaa qada amran faynama yaqul lahu kun fayakun ñetteelu ayib mooy jaalil malaykati rusulan uli ajnatil masne wa sulaasa wa rubaa yasiidu fi xalqi maa yashaa inna allaha ala kulli shay'in qadirun ñeenteelu aaya bi mooy daawihum fiya subhanaka allahuma wa taxiyatuhum fiya salaamun wa axiru daawihum an alhamdulilahi rabil alamin juróomeel aaya bi mooy huwa al awalu wal axiru wa saahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shay'in alimun juróom-benneelu aaya bi mooy wallahu min waraa'ihi muhiitun bal huwa qur'aanun majiidun fii lawhin mahfuusun juróom-ñaareelu aaya bi mooy suyyina linnaasi hubbu shahawaati mina nisaa'i wal baniina wal qanaatiiril muqantarati mina zahabi wal fiddati wal xayli musawwamati wal an'aami wal harsi zaalika mataa'ul hayaati dunya wallaahu indahu husnul ma'aab juróom-ñaar yi ci la ñuy istixaara ci la ñuy seet ci la ñuy xam doomu aadama bi tabi'am ndax tabi'am ndox la. wala safara wala ngelaw wala suuf loolu ñuy wax trois biyu hawa iyu maa yu arab yi noonu la koy wooyee nit ñi maanaam ñeenti xaaj lañ dafa am ñoo xam si seen seen mbir ndox la am ñoo xam si seen mbir safara la am ñoo xam si seen mbir suuf la am ñoo xam si seen mbir ngelaw la ci misaal tey bu fekkoon mbokk mu ñuy wax Abdul Karim Ba dafay bëgganteeg soxna suñuy wax Fatoumata Diaw Fatoumata jaw bu fekkee tabiaam dafa nekk safara Abdul Karim Ba ay mbiram nekk ngelaw ñoom ñaar seen diggante du mën a dox sëy boobu du mën am sëy bi du mën am wala bu ñu fexee ba sëy problème dana am coow dana am histoire dana xuloo dana am xeex dana am ndax ñaari tabiya yi ñoo bokkut ngelaw ak safara mënewun ngelaw fu mu fekk safara dafay koy gën a upp upp mu gën a tàkk su boobaa faaw ñu xool ñaari tabiya yooyu yan ñaan lañ ciy def pour tabiya yi mën a juboo yan sarax lañ war a génnee pour tabiya yi man a mën a juboo te loolu lépp yaa ngi koy xamee ci juróom-ñaar yooyu ma sànq. ci la ñuy seet ci téléphone man ku ma woo en direct ci téléphone même boo ma waxul sa tur boo ma joxee sa date naissance ak benn chiffre diggante 1 ba 9 en direct dama lay seetal wax la nekk ci yow ci téléphone. te maa ngi koy sukkandikoo ci juróom-ñaari yooyu juróom-ñaari yooyu nga xam ne si lim naa ko ci ginnaaw su ko defee kon bu ñu jugee ci loolu damay dugg ci Fatiha muy Fatiha juróom-ñaari aaya la moom it. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin première aya arrahmaani rahim ñaareel aya maaliki yawmi diini ñetteel aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñeenteel aya ihdina siraatal mustaqim juróomeel aya siraatal lazina an'amta alayhim juróom benneel aya gayril maghdubi alayhim wala daalin amin juróom ñaareel aya kon fatiha juróom ñaareel aya la képp koo xam ne kii da am jafe-jafe xat-xat problème bu mag boo xam ne si maanaam man nga cee am gàllankoor wala man laa yàq sa àdduna nga bëgg koo nga bëgg problème boobu deñ li lay digal mooy juróom-ñaari bis yooyu ma lim sànq dimanche ngay tàmbali jël sa kurus daal def astaghfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois weer de alhamdulilahi rabbil alamin fois daal di ñaan sa soxla dem nga defaat noonu astaghfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois nga werdu ko cent fois daal di dem talaata nga def astaghfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois maliki mi diini soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon àllarba nga werd astaxfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois daal di daal di werd iyaaka na abudu iyaaka na sahin soixante-dix fois daal di nga def astaxfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois daal di werd ihdina siraatal mustaqim soixante-dix fois juróom fukki yoon daal dem su ko defee ajjuma nga werd astaxfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois daal di werd siraatal lazina anamta alayhim juróom-ñaar fukki yoon cent dix fois samedi mooy dernier dernier bis bi nga werd astaghfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois daal di werd ghayril maghdubi alayhim wala daalil amin cent dix fois juróom-ñaar yoon samedi ci guddi boo tëddee dañu lay woon sarax bi nga war a génnee pour ay woo musiba boobu du am ñu wan la sarax bi soo lay nekk wala mu nekk suukar wala mu nekk benn sarax boo xëyee nga génnee ko problème boobu moom day daal di saafaraw kon kooku may nañ ko askan wi beneen secret bi ñu may ci Fatiha mooy kaaraange képp koo xam ne ki bëgg ngaa am kaaraange na nga bind Fatiha nga ibbi mii yi miim ci nekk boo ko yaatalee da nga ciy bind yaa allahu yaa kaaf yi yaa allahu yaa kaaf yi ba muy onze Fatiha nga def ko saafara boole koog reenu ngeer reenu ngeer sangoo ko juróom-ñaari fan moom it kaaraange la képp koo xam ne ki it sa wërsëg dafa tëju nga bëgg sa wërsëg ubbeeku ci Fatiha mën nga bind Fatiha juróom-ñaari fukki yoon waaye nag da moom tamit dangay ubbi mii yi dugal ci yaa allahu yaa razaqu yaa yaa allahu yaa razaqu ba muy juróom-ñaar fukki yoon nga def ko saafara boole ko lu ñuy wax sungufu waswasoor ak ndoxum géej ak lakkoloñ bu ñuy wax kaafin kaaf sangoo ko moom it fukki fan ak ñaar douze jours parce que douze chiffre bu am solo la secret bu am solo la moom douze laa ilaha illallah boo bindee xaraf yi wàññi ko moo lay jox douze araf muhammad rasulullah nga bind xaraf yi wàññi ko mu jox la douze araf Ababacar Sadiq nga bind ko wàññi xaraf yi mu jox la douze araf Omar ibnu Xataab nga bind ko nga wàññi xaraf yi mu jox la douze araf Ousmane ibnu Affan nga bind ko wàññi xaraf yi mu jox la douze araf Ali ibnu Abi Talibin nga nga bind ko wàññi xaraf yi mu jox la douze araf te ñeent ñooñu ma lim ñoom la ñuy wooyee al xulafa u rachidin maanaam yonente bi mu fi jugee kii ko njëkk a wuutu mooy Ababacar Sadiq ku ci topp Omar ibnu Xataab ku ci topp Ousmane ibnu Affan ku ci topp Ali ibnu Abi Talibin ñooñu ñëpp boo bindee seen tur nga wàññi araf yi mu jox la douze araf douze mooy jàpp Omar al Futiyu Taal boo bindee Omar al Futiyu Taal nga wàññi xaraf yi mu jox la douze araf douze mooy jàpp jërëjëf Serigne Touba boo bindee jërëjëf Serigne Touba nga wàññi xaraf yi mu jox la douze douze bu ñuy wasifa jëfaltu kamal ñu ngi koy jàng ci douze per allahuma salli wa sallim ala añ rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqatil hayatati bi markatil fuhum wal maani wa nurul akwani mutakawwinat adami sami bil haqqi rabbani al barqil astan masoni al barqil maliyati lukul mutaharrimi al buhuri wal awani wa nurika lami irsi malata bi kawnaka al hayati bi imkanatin makani allahuma salli wa sallim ala añ al haqqi allati tatajalla minha unsul haqaiqi añ al ma'rif al aqwam siratika tamil asqam allahuma salli wa sallim ala talhatil haqqi bil aqil kunzil ansam ifadatika minka ilayka ihatatin nuril mutasam sallallahu alayhi wa ala alihi saratan ta'rifna biha iyahu douze fer lañ ko jàng kon chiffre douze lu am solo la su ko defee kon na ko ñëpp xamee noonu beneen bi topp it ñu koy maye ci fatiya mooy képp koo xam ne kii da bëgg yàlla musal ci làmmin ak cat bu ne cat catu bët am na catu làmmin am na su boobaa fatiha it ba tey mën nga ko bind waaye aay boo bind ci fatiha ci da ngay bind wa in yakaadu llaziina kafaroo layazuliqunaka bi absaarihim lammaa sami'u zikra wa yaquuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illaa zikrun lil aalamiin ba muy benn fatiha nga xam ne aaya bu nekk dangay bind way nekkaadu benn nga koy bind moom tamit yooyu mi amee cat nga boole koog li nga xam ne si moom lañuy wax garabu kàdd kadd maanaam boo mënee am reenu kàdd nga boole koog moom nga sangoo ko juróom-ñaari fan moom it yàlla dafa lay musal si lammin catu lammin ak catu bët ñaar yooyu moo am catu bët ak catu lammin yàlla yàlla dafa la ci musal kon su ma jógee ci loolu mu mel ne damay ñëw ci feebaru. ndoxum siti mooy lan ndoxum siti feebar la boo xam ne ci ci der lay nekk waaye tamit laataa muy ñëw ci ci der dafay ñëw ci ci deret ci deret lay nekk soo ko feeñ ci der moom ndoxum siti am ñu koy wooyee toppum sëdiya ndax feebaru ndono la bu fekkee sama maam daf ko am ma nga ko am sa say waajur bu ñu ko amee ma nga am feebaru ndoxum siti mu nekk feebar boo xam ne si nag bëri na lu mën yàq ci doomu aadama bi mën na yàq weewu doomu aadama bi wey di lakk di ñuul mën na yàq bëtu doomu aadama bi gis koo xam ne kii ay bëtam maanaam li ci war ñuul lu ñuul kukku bët yi day mel lu giri li war a weex day am ay taas yu ñuul wala ay taas yu xonq wala nga gis koo xam ne kii bët yi maanaam day xonq cooy mel ne ataaya wala mu ñuul ko mel ni café kooku ndoxum siti moo koy def ndoxum siti danay waral nit ki yaramam def ay picc picc yooyu day xasan mu koy wokk bu ko wokkee day génnee ndox ndox moomu fu mu laal ci yaram bi day def benn picc bu yàggee dafay indi indi góom dafay indi ay taas ci yaramam loolu ndoxum siti moo koy def bu dee jigéen nga mën naa waral saa bu ëmbee mu yàqu ñi cat la ñi naan dañ laa liggéey rab la def def la fekk ndoxum sit la bu dee góor nga mën naa waral maanaam ngay néew doole ci wàllu sëy wala booy sëy di gaaw a yegg wala sa sakkara di di peer di delluwaat kooku ndoxum sit moo koy def su ko defee feebar la boo xam ne si moom it am nañ ci ay tegtal ci alxuraan karim am nañ ci ay saafara ci alxuraan karim képp koo xam ne kii dal na la mën nga woote ci numéro boobu di jàll ci kanamu écran bi 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 boo ci wootee rek incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dana mën a saafarawu ci kàttanu yàlla bi isnillahi taala ma ñëw ci feebaru émorite émorite jàngoro Kajoor lañ koy woowee ci olof. ndax feebar la boo xam ne si feebaru togg la ñi nga xam ne si dañuy liggéey liggéeyu toggaay bi yàgg ñoom lay dal safoor yi tailleur yi commerçant yi toog di toggaay bi yàgg ak jàngalekat yi nga xam ne dañuy toog toggaay bi yàgg émuride nag lekk yu koy indi mooy lekk pat lu mel ni macaroni bu bëri vermicelle bu bëri patas patas bu bari pat yooyu mburu mu bëri beñe bu bëri dafay indi émuride yooyu boo ko dee lekk te doo digéré wu mën ngaa amee émuride dafa am bi nekk ci biiru nit ki ak bi feeñ lépp danaa ko leeral bi ne ci ci biir moo waral boo lekkee du gaaw a rees waaye tamit dangay seere li waral loolu mooy bu njëkk mag ñi bu ñu masaan lekk ba noppi dañuy naan daqaar wala ñu naan euh, gitax wala ñu naan meew meewum nag ratu ko ci tàngaay mu naan ko day tax li nga lekk gaaw rees waaye boo lekkee pat noppi naan ndox mu sedd wala nga naan ataaya wala nga naan café day tax lekk gi su boobaa nag da daal di seere seere boobu nag fa bi nekk ci biir di tàmbalee ngay seere bu fekkee da ngay seere sa biir bi day jooy na naan gur di jooy ngay tayel nga gis ni tamit maanaam di nga toog ñaari fan ñett doo maa dem toilette te nit ki bu fekkee wér nga di lekk di naan chaque jour war nga war ngaa maa dem toilette waaye am bi bi na ci biir mën na la te ñetti fan ñeent doo dem toilette ngay géex di seere sa biir bi di jooy su boobaa xamal ne am nga feebar hémorroïde bi nekk ci biir bi nekk ci biir nag doomu aadama bi fi muy demee toilette mooy def benn benn benn taab benn bul taab googu nag day neew di metti day jaxase xelum nit ki nit ki xel xelam di jaxasoo di day tax nit ki tayal day tax nit ki mel ne dañ ko yan àdduna day tax nit ki dafay ñàkk énergie même bu bu yëkkati woon benn siwo day day di si moom gan day mel ne ku ku ku yëkkati 50 kilos kooku hémorroïde hémorroïde moo koy def moom it da dal góor da dal jigéen feebar bu doyaar la. te naqaree faj waaye dañ ko dañ koy saafara ci alxuraan karim ndax alxuraan moo ne maa farat naa fi kitaab min shay'in téere bàyyiwul dara lépp mu ngi ci biir alxuraan karim kon dañ koy gëstu indi ko askan wi pour ñu mën koo jëriñoo bi isni lay temps la ci kàttan yàlla ak mbaxam kon képp koo xam ne kii bëgg nga mu saafara ci yow moom émurit euh, da ngay daal di oote ci numéro boobu rek di jàll ci kanam écran bi muy 78 592 64 54 78 592 64 54 incha allah boo si wootee di nga mën a jot ci garab googu ma tëjee ak euh, palante yi nga xam ne si ci laa ko bëgg a tëjee muy ñaari garab pom day dindi stress day dindi stress pomme dafa nekk fruit boo xam ne si ku koy lekk moom doom bi sa deret du am benn jàngoro day raxas deret ji pomme képp koo xam ne kii da nga amee xetu xeetu gémmin nga wut soixante-dix xobi ko xobi xobi pomme soixante-dix xob nga def nga nga nga def ko sunguf maanaam weer ko mu wow nga def ko sunguf boo ko defee sunguf yow mi am xeetu gémmin ngay def saa boo xëyee nga tibb ci sunguf bi bomb ko si si bëñ yi raxasee ko say say bëñ suba ngoon balaa mat une semaine xetu gémmiñ googu dafay deñ moom pom bu fekkee da ngaa bëgg am kaaraange pom dafay dox ci kaaraange képp koo xam ne ki da bëgg yàlla aarala ba tey boo mënee am xobi pom nga am ci 111 xob dëbb ko boo ko dëbbee nga def ko sunguf daal maanaam nga weer ko ba mu wow nga def ko sunguf euh, daal di koy dëbbu boole koog 111 sóoratul falaxi ak 111 sóoratul naasi nga sangoo ko fukki fa ak benn moom it ba tey kaaraange la ci pom ba tey pom nekk na fruit boo xam ne si dafay dindi feebaru estomac ñi nga xam ne si dañoo am estomac euh, ku ko ci am bëgg mu saafara mën ngaa wut juróom-ñaari doomi pom nga daggate ko ba mu sew boo ko daggatee danga nga koy booleeg citron ndoxam limon baxal ko boo ko baxalee nga segg ko boo ko seggee yooyu mi amee estomac ngay des saa boo añee ba noppi wala boo reeree boo ndékkee boo añee boo reeree boo ndékkee nga naan ci ñaari kaas ataaya moom it dafay dindil euh, day saafara estomac incha allah moom itamit may nañ ko euh, beneen bi topp beneen garab gi nga xam ne si dañ ci war waxaat muy garabu orange orange dafa nekk fruit boo xam ne si moom it dafa am vitamine C liñ ci maye mooy doomu orange bi ku koy lekk dafay dindi miir maanaam li ñuy wax miir jekki-jekki di miir daf koy faj moom doomu bi koo xam ne kii tamit maanaam. da ngaa amee li nga xam ne si moom la ñu woowee feebaru yax yax yi metti boo mënee am benn doomu orange nga nal ko ndox moomu nga boole kook lem boo ko boolee lem bi da nga koy tàngal ba mu nugg nga di ko naan boo añee kaas benn kaas ataaya boo añee euh, euh, nga naan ci benn kaas boo reer ak boo ndékkee moom it dafay dafay dafay faj tànk yi metti euh, dafay faj mboolem feebaru yax kon loolu lañ doon may tey ci orange ak ci garab pomme képp ko xam ne kii li ñu fi waxtaanee bëgg nga ci ay leeral mën nga woote ci 78 592 64 54 78 592 64 54 mooy numéro boobu di jàll ci kanam bi boo ci wootee rek di nga mën a gindeeku allah ci kàttan yàlla des na mën jàppale ci kàttan yàlla ak mbaaxam jërë jëf ci seen beneen émission jotaay xam-xam fii ci seen seen bu mag bii di Thiès Info jërë jëf.